auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëf Serigne Touba jaraw lakk maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp jërëjëf euh, maam Rane yow mi ñëw fii tey Géejawaay Allée Doubalès kër Serigne Lamine Bara Fall euh, ñu ngi lay déglu ci bépp laaj bi nga xamante ne laaj nga ñu ko ci wàllu cabinet bii di univers bio xéwalu Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam macha allah rabbi lépp loo ñu laaj rek daal la ci tontu suñu kéemtalaay kàttan indi la ci ay leeral ba lépp daal di xéwale lépp tawféex waaw jërëjëf maam daan ci laaj bi ma laaj ci wàllu doole ak ngóor ak sëy li ëpp ci ñi fi ñëw dañuy faju lii di doole ak ngóor ak kàttanu sëy ndax ku xam seen Bara Fall xam ni yàlla da koo may mu spécialisé wu ci côté boobu ndax cabinet bi nga xamante ni mën nañu wax depuis 2002 ba léegi ñëpp ak ñu ciy xam boobu ba tey nag ñoo ngi faj lépp lu jëm ci wàllu doole ak ngóor ak kàttanu sëy li ëpp ci ñiy ñëw nag di faju bi li ñuy gën a faju muy éjaculation précoce moom mooy li ëpp ci ñëw di ko faju 90% ci suñuy malade lii la ñuy faju muy éjaculation précoce éjaculation précoce nag dañ ci am ñaari gamme de traitement am na lu ñuy naan am na itam lu ñuy diw am na ñoo xam te ne nag moom pommade bi rek la ñu soxla pomade bi moom moom la ñuy soxla moo nekk nii moom da nga koy diw rek ci bopp bi nii rek da koy diw soo ko ci diwee moom ci kàttanu yàlla da koy faj définitivement ba dootoo gaaw a daanu da lay téye da ngay durer dootoo gaaw a am benn problème mu éjaculation précoce waaye liñ ci gisaat mooy dafa am li nga xam ni moom la àndal muy sachet bii mooy lu jëm ci wàllu éjaculation précoce carrément ku dugg ndaw gi nga ci natt moom nga koy jëlee boole sa lu tàng mën a café mën a lipton mën a nekk meew lu tàng loo am nga koy pendant 15 minutes da ngay sentir da ngay ñàkk garab effet effet carrément c'est fini balay ma 30 minutes une heure de temps garab gi dose bi dina mën dugg sa yaram dan la fajal lepp luy éjaculation précoce définitivement ndax éjaculation précoce comme ni ko waxé sank ba légui dafa nek fièvre bi nga xamanteni bu bëri la bu sonal askan bi la bu sonal jeunesse bi la bu sonal paa yi la bu sonal xalé yu góor yi la manam sonal na nit ñi dal yalla nak moy natou xeyna peut-être nak suñu lekk la bokku na ci suñu lekk ci lu ko jur loolu yëpp dans la consultation dinañ ci mëna wax te itam garab gi deesu ko jaay sans consultation dee suñu ko jaay mukk sans consultation nit ki foog ñu la xam yaay kan xam feebar bi nan la ak naka la pour ñu def ko pour consultation bi comme ni ma koy waxee rek da ngay bàyyi sa message vocal whatsapp wax ma di ma garab garabu éjaculation précoce tout court dinaa la leeral lépp incha allahu rabbi bu dee pommade bi nga war a jël wala bu dee gam bi complet nga war a jël ak lan nga war a def nan lañ la koy jàppale ba nga jot ci garab bi éjaculation précoce bi pot bii ngeen di gis si pot bii lay nekk ñu bind ci kattan góora ak éjaculation précoce pomade bi comme ni ngeen ko gisee pomade bi c'est bio naturel il y a pas de toxique il y a pas de chimique amul toxique amul chimique c'est tout à fait bio lepp ay garap la ay gàncax la yi ñuy liggéey képp ku ñëw géejawaay arrêt du bales danañ xefe noo si jote incha inshallah rek leen lépp lu jëm ci walu doole ak ngóor a kàttanu sëy ba légui ci biir gam bobu dafa am benen bi nga xamante mom la andal pour ñi nga xamante dañu am impuissance sexuelle ñooñu dañu am problème mu dëgër maanaam duñu am ay érection yu normal érection mo la am manam du deuguer day noy day flexible kon bi mo koy mo la ci dimbale muy puissance bi bi moy spécialement pommade pour puissance bi batay na dafa ànd ak gamme bi lu la ak luñu diw ñom ñaar lañu coupler pour mu mën def des bons résultats ci walu doole ci walu ngóora ci walu Katan, ci walu sey kon képp ki xam te da nga soxla lu ni mel comme d'habitude bayil ma sa message vocal whatsapp ci 77 169 45 45 77 169 45 Bataille Nous ba tey ñu dellu ci sunu gamme de traitement rapide extra bi nga xamanteni moy mooy lu jëm ci walu euh, agrandissement de la taille du pénis Manam sen awra dafa ndaw ñooñu yalla mëna leen dimbalé bu ñu defee consultation ci ñun ñu xol ko garab bi def agrandissement dès su ko jaay sans consultation duma ko joxe mukk sans consultation consultation bi képp ki nga xamante soxla na ko rek nama envoyer vocal whatsapp dinañ la wax consultation bi naka lay

ak surtout li ñuy diw gam bi nag li ñuy naan la ak li ñuy diw ba tey rek gamme de traitement bi comme ni ma ko wanee won sank ba légui mo nekk ni boko sa seetloo bu baax trois bouteilles la ak ben pot ñu ci bind pan sexuel ci kaw pan sexuel ak kattan góora impuissance amna éjaculation précoce amna agrandissement amna faiblesse sexuelle manam muy fek lepp luy jafé jafé lepp luy développement bi ci walu ngóora bi yok guddaay bi yok rëyaayam yok dëgëraayam ak faj éjaculation précoce

te loolu yëpp dafa nekk li xam te ne dañ leen ci may ay ñaan fajal leen ko ak surtout ñi nga xam te ne dañu am problème mu varicocèle problème mu testicule problème mu ndoxu sëyukaay pour am njaboot gu bëri te barkeel loolu yëpp mi ngi ci am ñoom te dañu am jabet jabet boo ko amee dafay wàññi sa doole day wàññi sa ngóora ñi am prostate surtout ñoom itim traitement bi dafa baax ci ñoom képp ki xam te ne nga am prostate loolu itim ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem dinañu xefe nan nga jotee ci garab yi nga xam ne mooy faj doole faj ngóora faj kàttanu sëy am na ñoo xam te ne ay mag lañ dem nañu ba âge boole ñu dugg 40 ans ndax képp ki xam te ne jege nga 40 ans rek prostate dafay nekk lu lay jege ñooñu ñëpp am prostate wax dëgg yàlla dimbale ngi nii ci kàttanu yàlla daañu leen ci mën a dimbali may leen ci ay traitement ba mu dañ li may demander rek man lu simple la duggal sama whatsapp 169 45 45 di nga gis sama whatsapp nga bàyyil ma sa vocal whatsapp wax ma lii mooy sama problème dinaa la ci indi leeral toppatoo la consulter la wax la lépp ticket de consultation bi daañu la ko leeral expliquer comment ça se passe wax la lépp wutal la rendez-vous wutal la ci garab yi incha allahu rabbi boo dee mag soo mënee ñëw alhamdulilah soo mën mënta ñëw di nga yónnee wala ñun ñu wutal la ku la ko indil ba fi nga nekk incha allah ndax livreur yaa ngi fi yaa ngi déplacé wu à tout foo mën ne ci àddina dañ ci mën a jot incha allah ci kàttan yàlla kon ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi am jafe-jafe ci wàllu doole wàllu ngóore wàllu kàttanu sëy te ndoxum siti waral ko wala émorite waral ko wala prostate waral ko wala diabète waral ko wala ñu am problème mu ndigg buy metti wala tànk yi metti wala tànk yi ruux di yaram buy tàng wala ñu am problème mu rhumatisme wala hernie discale problème mu lombalgique ñooñu ñëpp dañuy am jafe ci wàllu doole ak ngóor ak kàttanu sëy kon képp ki nga xamante ni yaa ngi am jafe-jafe ci wàllu doole ngóor ak kàttanu sëy ak cause bi nu mu munti doon am nañ ci solution képp ki ñu jege rek incha allah rabi su waxtaanee ak ñun ñu xool naka ak nan ak fan la ñu mën a jaar dinañ ko ci dimbali kon na ma ko waxee woon sànq noonu laa koy waxaate man Serigne Lamine Bara faal maa ngi Dakar Géejawaay arrêt Doubalès booru rond-point marché jeudi képp ku ñëw ba foofu rek incha allah rabi di nga gis cabinet bi waaye sur rendez la da ngay bàyyi sa message vocal WhatsApp wax sa soxla danañ la tontu ci numéro yii 77 169 45 45 77. 169 45 45 ku ci bàyyi sa message vocal whatsapp wax ni lii laa bëgg dinañ la tontu wax la nan la ak naka la fan ngay mën a jaar ñu mën la toppatoo orienté la conseiller la consulter la wax la ni ngay mën a def ba nga mën a jot ci suñu garab yi ak bépp feebar bi nga xamante ni am nga ko incha allah ak bépp soxla bi nga xamante ni am nga ko bépp jafe-jafe bi nga xamante ni am nga ko ci sa couple ci sa biir néegu sëy muy jigéen muy góor ak jigéen ñi nga xamante ni itam duñu am bànneex ci sëy loolu yëpp am nañu traitement spécial yi nga xamante ni pour jigéen buy sëy te doo am plaisir pour jigéen buy sëy dooy am bànneex pour jigéen buy sëy te mënoo am njaboot pour jigéen buy sëy te mënoo am jàmm ak salaam ci sa kër ndax du góor ñi rek jigéen ñi am nañu problème góor ñi am nañu problème mais ñoo ngi ñaan ci suñu borom képp ku ñu yàlla booleel rek contacté ñu ci numéro 77 169 45 45 ñoo ngi fii ci Dakar Guédiawaye arrêt Doubalès kër Serigne Lamine Bara Fall bàyyil ñu vocal WhatsApp ñu trouver le rendez-vous orienté la conseillé la consulté la wax la lépp lu nekk ci sa yaram may la ci ay ñaan jàppale la ba lépp xéwal lépp tawféex incha allah kon ñoo ngi tuub bu baax di jégalu bu baax képp ki nga xamante ni rek yàlla boole nañoo ak yow yàlla nañu yàlla gisale yàlla nañu yàlla wanale ci kaw suuf ba ñu dimbale la jàppale la taxawu la conseil la orienté la dimbale la ci sa feebar dimbale la ci sa tawat ba lépp xéwal Géejawaay arrêt du Balès kër Serigne Bara Fall 77 169 45 45 77 169 45 45 bàyyi ñu sa message vocal whatsapp dinañ la tontu incha allah rabbi pour dimbale la ci say gàllankoor ak say jafe-jafe jërë ngeen jëf allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim sëriñ Lamine Bara Fall